Euh, li may noor rek mooy euh, déjà parenage bi def naa Bambey def Diourbel def Mbacké mais nag di sant waa département de Mbacké bu baax ci accueil bi ak discipline bi ak déggoo bi nga xam ne gis naa ko fi. Mhm. alors donc kon 45000 la ñu indi woon donc ñu war ko répartir ci département bi 11 euh, ñu war def 11 zone Touba dox waa Mbacké dox alliés yi jox encore parti politique yi. jox ñëpp vraiment ba nga xam ne parrainage bi dafay mën a démarrer donc di d'ici dix jours ñu am yu njëkk yi kon loolu laa fi indiwoon te mission bi comme euh, dama nekk euh, pôle ba nga xam déjà région bi lañ ma dénk te loolu rek lañ ma sasoon loolu moo doon sama kaddu waaye vraiment fekk naa fi ñu déterminé euh, fekk fi ñëpp donc vraiment fekk fi moom frère Gallo mu dalal ñu aussi vraiment taxaw ñu lépp mu euh, jàpp ci. donc loolu daal laa woon indi message président de la République mu di leen féliciter aussi ci élection yu ñu jëm di leen di xam ni vraiment département bi def ci am yaakaar trop que ci élection yi wax dëgg neex yàlla mu lépp lu fi am ci député yi mu mën ko jël. mais loolu mën ñu ko def te ñu benn mën ñu def te jàppoowuñu te loxo nekkuñu benn jàppoo parce que li ñu diviser. moo gën a lu ñu lu ñu boole moo ëpp doole li ñu diviser du tey nag ku ne nañ ko déglul xalaatam ku ne ñu déglu ko waxam ku ne ñu nangul ko personnalité parce que c'est normal c'est la démocratie mais bu lépp weesoo booloo kese moo ñu mën a tax ñu jëm fu ñu jëm fu ñu jëm ñu dem fa. moom laay wax ñëpp na que maire yi nga xam nag lañ jox parrainage yi nañu woo tous les responsables ñu oo leen waxtaanoo ku ci nekk ñu jox ko ñu ko war a jox bu ko defee mu liggéey ko nu mu gën a baaxee. nu mu gën a jaaree. parrainage c'est tout à fait normal. parce que bu fekkoon tey day nu woon ci pays développé yi xam nga day nu woon conseil yi mais boo ko demoon Sénégal àdduna tukki ndax boo demoon Sénégal conseil fekkoon ñoom ñoo koy voté mais opposition du am moo daal léegi ñu nañ ko def mais léegi collecte bi nag ki koy def ci wàllu boppam bu euh, commune bu ci nekk ka nekk ci boppam bu demee collecté feneen bu du commune am dañ koy annulé tur bi aussi bu ko fàttee bi dañ koy annulé euh, collecteur bi aussi moom si wàllu boppam bu fàttee def carte électeur am koy annulé bu fàttee signé dañ koy annulé donc collecte la yoo xam ne déjà li ko yàq dafa dafa dafa yomb kon di invité nit ñi aussi ñu éviter jël ay GIE dajale dem dajale day indi ay doublon te bu ñu defalee doublon yi aussi ñun dinañ ko xam ci ordinateur yi te dañ koy mën a génn kon jarul dara aussi nga reyante baam ay collecte lu bari ba pare bien ci jël gi ñu dindi la lépp loolu am benn sens donc li am solo rek mooy vraiment gars yi def ci tey def ko nu mu gën a baaxee nu mu gën a selle nu mu gën a amee solo ba nga xam déjà ba pare ñu def ko animation politique parce que loolu dafa am solo parce que déjà président actuellement dafa soxla majorité te lii dafa am solo ci ci prélude ci élection yu jëm kon vraiment waa Mbacké ñu gën a jàppantewaat kën a téyewaat encore ñu gën a xam ne président de la république vraiment kontaan si ñoom euh, mu ngi leen di félicité te mu ngi leen di déglu te bientôt bu ñu dëppee li lépp nañ ko ci rendre compte vraiment mu ànd ak ñoom jàppale leen ba ñu ñu bëgg ñu mën waaw dañuy sant bu baax ba pare euh, disons le maire Malick Fall qui s'est déplacé ñëw ci turu président de la République euh, délivrer le message ci wàllu wàllu parrainage bi di remercier particulièrement tous les responsables maanaam les députés les membres des hauts conseils des collectivités territoriales ak euh, les membres du conseil social et environnemental les adjoints au maire tous les responsables mais également tous les militants et sympathisants ñëw tey pour wuyu si ndaje mi di wane seen yéene ak seen taxawaay pour que élection yi jëm département Mbacké gën ci ma gën ci gën ci fës. ci wàllu ci wàllu résultat waaye tamit li ñu koy may moo ñu fexe collecte collecte parrainage bu baax moo tax quota bi ñu jàpp naan dañ ko atteindre incha allah. matukaay bi ñu jël mooy bi ñu jël rek. maanaam sensibiliser informer conscientiser suñuy nit ak askan mi nga xamante ne moom lañ bokkal dëkk bi ak gox yi. pour ñu xam ne que ñoom li daan nekk si ñun di ñu jàppale guddeeg bëccëg di taxaw xaaruñ ci ñun xaalis xaaruñ ci ñun ay moyens financiers li ñuy xaar mooy ku leen yëg ku leen jàppale ku leen taxaw loolu nag xam nañ ko tey jàpp naa ne te parrainage yi di ñuy weesu woon euh, am na taxawaay bu mat sëkk élection yi gën it waa Mbacké am nañ taxawaay bu mat sëkk ak département de Mbacké donc dañ koy euh, lawal pour que élection yi ñëw aussi ñu gën ci gis suñu bopp waaw ñu ngi rafetlu teewaay dèjà ñi fi nekk ñëpp ak euh, di rafetlu tamit seen engagement ak seen taxawaay responsable li leen di wax rek mooy responsable maanaam c'est assumer ñu responsabilité loolu nag da nga koy assumer devant l'histoire et devant la communauté bi nga bokk kon li leen di woo mooy te ñu ànd lëkkaloo nekk benn xam ne élection yi weesu jàll na élection yi jëm ñu koy may ndam départementale la du élection ay commune élection département bi la dafa laaj également ñëpp ànd bokk ben bokk ndey bokk bay pour ñu mën a gagné élection incha